mouvement gëm sa bopp moom ci jëmmi boppam rek dañu ko convoqué woon ñu foofu ca division spéciale bu cybercriminalité ngir mu tontu ji nag ci ay accusation wala ay tuuma yoo xamante ne rek tuumal ko te waxuñu ko nag bu sukkandikoo rek ci ñi nga xamante rek ñoom ñoo fekkee boobulee mbir nag ci boobulee jamono kii di Maty Sarr Niang da doon événement ci mbir mu nu mel nag la ko ay partisan bu gan gay dani daal di jàpp la ñu koy toppee rek moo di ne moom ci jëmi boppam rek dafay favoriser li nga xamante ne rek moom mooy euh, ñu nekk ci nguur gi ak ñi ci opposition bi nag maanaam daal day def favori ci nguur gi ba noppi daal di neewal doole nag opposition bi waral rek ñi nga xamante ne rek ne nañu ay njegeñaale bu gan gay dani ci seen jëmi bopp rek daal di koy agressé mu nekk nag jëf joo xamante ne rek mën nañ ko dippee nag jëfu mala la ñu def jëmale ko nag ci journaliste bi nga xamante ne moom mooy Maty Sarr Niang ginnaaw bu ñu gisee ne rek day faral nag di yëkkati ay kaddu yoo xamante ne wala day critiquer nag opposition bi rawatina nag seen farandoor bi di Bougane Gueye Dany mi nga xamante ne rek léegoo-léeg da koy dugal ci ay intervention yi nga xamante ne rek da koy def publiquement du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi mën a am yeneen xibaar